le président c' est normal ay xeer bu jógee on protège le président ah c' est pas normal on avance on oh, avance ñu gis ay xeer bi ñëw gis nga ils ont protégé la voiture du président ils ont protégé la voiture du président ils ont protégé la voiture du président c' est pas normal vous avez vu toutes ces genres de choses là ah, ah, ils ont protégé la voiture du président. Ils ont protégé la voiture du président. Ils ont protégé la voiture, vous l'avez C'est pas normal. Voilà. Président Dougane. Président Dougane. Président Dougane. Président Dougane. Gis garde yi génn nañ ngir masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Sonko masuñu yaakaar Allez